nu ngi nuyu mbooloo mi ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi sunu sang bi toog jëmmal jataay bi di Cheikh Mahfou doomu Cheikh Mouhamed Fadel doomu Cheikh Al Mahfou doomu Cheikh ne Cheikh Saad Bou tey yàlla dogal ci kaw suuf mu nekk xalifa sunu maam Cheikh Al Maxf kon noo ngi koy nuyu bu baax di ko jiital ci nuyu bi di ko ñaanal gudd fan ak wér gi yaram yàlla na ko yàlla defar bi jaayi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa bi jaayi jaddihi cheikhina cheikh al maxfu di sàkku ci mbolo mi bala ñu commencé ñu def fatiha ci ndigalul khalifa bi def fukki qul wallahu ahad ak ñaar ñaanal sunu papa cheikh Mouhamed Fadel doomu cheikh shaya mi nga xamni mom la sunu sang bi wuutu ci khilafa gi ak rakam cheikh da talibuya ak sunu badjen soxna Gara ak Cheikh Sidi buye doomu Cheikh Chaye doomu Cheikh mohammed Vadel doomu Cheikh Almaf ak surafa uyi wàcc liggey ñëpp yàlla yok sen leer ca barzaq rasulillah sallallahu alayhi wasallam sallam bu ñu noppee ñu def falaqeg naa si tëje salatu ala nabi ak talibé yi fi jóge yëpp te noona ñaan goog gépp ñoo ngi ciy jiital ki yàlla tégon ci bop khilafa cheikh ne cheikh sad di sunu wajur di cheikh ne cheikh Aya mi nga xamni dañuy wax ni qad mata qawmun wa ma matat makarimuhum wa asha qawmun wa hum fi an nnaasi amwatun nit dee na aw turam du fay ila yawmi diin waaye cheikh na cheikh aya aw turam du fay ila yawmi diin bu ñu noppee ñu def falaqeeg naa si salaatu ala nabi ñaanal sunu sang bi cheikh maxfu xalifa cheikh maxfu di cheikh maxfu yàlla aar ko ci ñaari saar yooyu aaraale ci njabootam gi aarale ñu ci ñun taalibe yi ñu def ñaan gi ba pare ñu doog a yal na yàlla jottali leen ci ñaan gi bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi jël nuyoo njabootu boppam gi fi ne teg ko ci loxol ki yor baatu kër gi di cheikh Makhtar Diop xalifa cheikh Makhtar Diop doomu cheikh Makhtar Diop mu jottalil ko njabootu boppam gi nekk ci biir ëtt bi di njabootub sunu maam Cheikh Makhtar Diop waaye di njaboot sunu maam Cheikh Dey Calaw di njabootub sunu maam Cheikh Paté Sarr di njabootuk sunu maam Cheikh Talib Bouye Diop ñi nekk ci ëtt bi Makhtar Diop nee ne asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di ziyaare waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa teew waxtaan bi ñu bëgg a waxtaane diggante taalibe la ak taalibe bu ñu paree nag kilifa gi wax ay waxam moom xalifa bi Cheikh Mahfou na ko bëggee ñu doxale ko noone am ak nam ko bëggee ñu koy waxee ab neew Cheikh mokhtar Diop nee buñ koy jullee dina am ku nekk ci kanam jiite neew ba nee na ga it ñaan dong la ña nekk sa sàppe ga imam ba nekk ca kanam la muy ñaan loolu dong Manam ñuy ñaan maanaam fofu Makhtar Diop nee na li mu bëgg wax foofu sama kàddu gi ma yëkkati ci seen kanam jiital la bu ñu ma jiital waaye du ngëneel du lenn du daraja daal du dara la dong ñu jël ko ko sama loxo it dama koy bokk ak yéen ñun ñëpp ñu àndandoo liggéey bi soobu ci Cheikh Makhtar Diop nee na benn loxo mënta tàccu te mbooloo it lu mu jéem yàlla sottal loola bu jéem nga awee yoon mbir mi nag Cheikh Makhtar Diop nee na nanu ko rafetal nanu ko rafetal rek àndandoo jaamu yàlla jaamu yàlla Andando, kenn ku ne ci ñun nga yaakar ni keur Cheikh Mahfou dal daal bu baxé man mi sama bop mako wara baxal bu kenn ku ne yaakaré lolu cim xelam ñun ñepp ñu bokk ko yaakar ñun ñëpp ni kër gi dina avancé gën jëm kanam te kër defar ben serigne mënu ko defar nee na wax na ko biig baatin ba sunu yoon nekku ci waaye nee na ñun taalibe yi li ñu yitteel mooy saayir si ndax ci la ñu mën a sukkandiku ba defar sunu kër sëriñ te defar gi it li koy mën a ñoŋal mooy mooy ñuy waxtaan di diisoo di gindikoo ku am xalaat indi man mi ñu jiital day man mii ñu teg ci kanam jiital ma day ma yore baatu kër gi sama xelu bopp doyu ma déedéet du ma def ba ni maa war a wax wala maa war a def déedéet lu may def rek lu may def lenn lu ne di soola ba ñu gindikoo ba ñu gindikoo jël lenn def ko waaye jiituwuma waaye jiituwuma sama xelum bopp rek yonent yalla muhammad sallallahu Alaihi Wasallam minugen gën ñun ñëpp gannaaw lu yalla indi gannaaw lu indi xelum bopam musuko doy da daan dajale sahaba yëpp ni mbir mi kat la xalaat lu ngeen ci xalaat yeen kenn ku ne indi xalaatam dedet di du xalaatu boppam rek xalaat bi danaan leen sama xalaatu bopp la bu dee alquran kenn du wax lii nag maa ko xalaat sama xalaatu bopp yéen ñëpp am ngeen xel mu rafet xalaat leen kenn si sahaaba yi xalaat yonent bi jël xelum boppam xalaati boppam astamaag man Cheikh Makhtar Diop mii sagaru nit kii toog li ma bëgg mbokki taalibe yi li ma bëgg mooy yéen mbokki taalibe yi nan seetaat sunu taxawaay. nanu xoolaat sunu taxawaay. maanaam taxawaay bi ni ñuy nekkee ci sunu kër sëriñ. maanaam taxawaay bi mooy ni ñuy nekke ci sunu biir kër sëriñ. taxawaayu taalibe ci kër sëriñam. taxawaayu taalibe ci biir kër sëriñam. du werante du werante. du xiiroo du taalibe taxawaayam ci kër sëriñam mooy. taalibe ci kër sëriñam mooy. saa yu xëyee dafa war di xool luy yokk kër sëriñam. lépp loo xam ne bii loolu ko yàq ñu moytu ko. lépp loo xam ni day yàq kër sëriñam ñu moytu ko. te lii ñu ma jox nii. lii ñu ma jox nii. sama bëgg-bëgg mooy. sama bëgg-bëgg mooy. taalibe bu nekk. taalibe bu nekk. gis sa bopp ci kër gi. gis sa bopp ci kër gi. ndax loolu dong moo ko mën a doxal. ndax loolu rek moo mën a doxal kër gi. man ñooruwuma kenn. man ñooruwuma kenn. nit dong laa nag. nit dong laa nag. xel laa yor. xel laa yor. xel mën naa fattu. xel mën naa fattu. waaye ku ma woowul wax la waaye képp koo xam ni woowuma la waxit laa tim. yaakaar naa ne li fi daje tey jii kër Cheikh Mahfou la. yaakaar naa ñi fi daje ñëpp kër sunu maam Cheikh Al Mahfou la. ku am sa xalaat bu rafet. ku am sa xalaat bu rafet. wax ma. buñ ca waxtaanee bu mënee jariñ doxal ko. bu ñu ca waxtaanee xalaat ba bu mënee jariñ ñu jël xalaat ba doxal ko. waaye kenn waxuma. waaye kenn waxuma. noppi naa. noppi naa. te la nga noppee. la nga noppee. am na njariñ ci kër gi. am na njariñ ci kër gi. yaa ngi yàq kër gi. yaa ngi yàq kër gi. te soo ko génne woon mënoon naa jur dara waaye da nga naan Cheikh Makhtar waxuma waaye da naan man fanga nga toog Cheikh Makhtar Diop waxuma kon naa toog rek bank samay loxo jàpp sama njàmm Cheikh Makhtar Diop mën ta waxal taalibe yëpp déedéet moo tax ubbi naa sama bopp moo tax ubbi naa sama bopp ca gën a tuuti ka ca gën a tuuti ba gën a mag ba ca gën a mag ku ci am sam xalaat boo xam ne bii kat déggoo ñu xalaat ko ku ca am sam xalaat moo xam ni déggoo ñu xalaat ko ñaan naa la nga wax ma ñaan naa la nga wax ma man duma def mukk sama xalaatu bopp man day duma def mukk sama xalaatu bopp déedéet ñaan naa yàlla it ñaan naa yàlla it sëñ bi yow mii ma ko dénk sëñ bi yow mii ma dénk nga ñaanal ma yàlla nga ñaanal ma yàlla ba ma bañ cee gis sama bopp ba ma bañ a gis ci dénkaane lii ñu dénk ma sama bopp su amee rek bu amee rek dox du dox du dox ñaan naa la boobu ñaanal ma ñaan naa la daal mayit boobu nga ñaanal ma ko. Eh, ñu organiser wu waat. Cheikh Matar Diop nee na ñu organiser wu waat. ndax eh, kër. ndax kër. organisation moo ko yor. organisation moo ko yor. organisation moo yor. organisation moo ko yor. samp ay kuréel. samp ay kuréel. ci dëkk bu ci nekk. dëkk bu ne bu ci nekk ñaan naa yàlla ma sol sama dàll wii dem ba foofa waxtaan ak ña fa ne man di Cheikh Matar Diop bala ñoo dem rek leen rek laay wax pour lu la dimbali nii kenn dootu ni yëguma mooy gox bu ne nañu fa ubbi benn groupe bu whatsapp tuddee ko Cheikh Maxf bu ko defee lu ñuy jàllale la ñu cey jàllale kenn du ni yëguma loolu dey man laa lay yokkal bu dee man a ne bisimilah continuer lii nga ma yokkali cheikh bi nee na lii ma koy yokkali jox naa la ndigal la nee na jox nañu ndigal li nga def ñu def loolee incha allah taala euh, su ko defee bu ñu ko wëree fépp bu ko defee bu ñu ko wëree def ko fépp fu nekk ñu samp fa kuréel fu ne ñu samp fa kuréel euh, jiital kenn foofa jiital kenn foofa daanaka ñun suñuy wax dootu bari bu ñu ñëwee kooka rek la ñuy laaj kooka la ñuy jokkool mu jokkool kuréel ga nekk ci dëkk ba mu ne wax ko xabaar bi ñu tasaare ko ci seen biir ñun réponse ba rek la ñuy jot après euh, loolu daal Cheikh Makhtar Diop mi yor baatu kër gi nee na bu ñu ko defee sunu kër gi di course kër sunu maam Cheikh Al Mahfoud dina avancé lool te loolu dong nag la ñu bëgg. bu yàlla dogalee julli ñëw. bu yàlla dogalee julli ñëw. bu dee fii lañ koy jullee ci kër gi. bu fii lañ koy jullee ci kër gi. ñu ànd ak yar ak teggin. ñu ànd yar ak teggin. bu ñu xëyee solu ba jekk. bu ñu xëyee solu ba jekk. ñëw julli. ñëw julli. sëriñ bi ñaanal ñu. sëriñ bi ñaanal ñu. waxtaanal ñu ñaanal ñu wax ak ñun ñaari baat ñu dellu ca xayma ya bu dee ca place bu mag ba la bu dee ca bu mag ba la ñuy jullee ji rëg-rëg bi jaru ko déedéet balaa rëg-rëg am ñu commencé dem di julli ji balaa rëg-rëg am am ñuy dem di julli ñuy dem di julli ji te xayma bi maaraam yi ñu ngi koy romb fii ci xaymaam bi gauche ak droite suba ak ngoon guddi ak bëccëg te maaraam yi ñu bi gauche ak droite suba ak ngoon doo geesu sax ni kat moo toog fii doo geesu sax ni xalifa Cheikh Mahfou moo toog fii bu ñuy julli ji wax dëgg yàlla rëg-rëg ji lu muy jëriñ bu ñuy julli ji rek rëg-rëg ji leen lay jëriñ amul njariñ amul njëriñ nan dox ndànk zikar sunuy zikar dem julli ji ci jàmm ki ñu yaakaar di jëmm ji sell ji di Cheikh Al Maxfu bu ba bu fekkee mooy ka royukaay ci kër Cheikh Al Maxfu waaw ñun ñii di ay taalibeem ñi war a roy ci exemple boobee buñ dee fël xoo ko réeroo liggéey booba nan nga koy giseti dedet dañu wara nek ay talibé talibé deug talibé deug ñu and ak yar ñu ak yar ak teggin bu ñu ba ca kay ba bu ñuy jullee ji ca penc mu man mi man mi ak ñun ñi wa ngoran nañu dem ci ba nañu bayyi serif yi ñu dugg fo rek am nga jullee ay te ñu bañ a buux buuxloog sang yi. julleel sax ci kër gi. julleel sax ci kër gi. yee la problème. waaye xët-xëtoo bi buuxante bi. fa sërif sa toog laay toog. ban njëriñ lay am al muridu bayna yadayi cheikhihi al muridu inda cheikhihi ka bayna yadayi xaasilihi dañu nib taalibe ca kanam sëriñam dafa war mel ni néew ca ña sang ab néew boo sang néew bi jóg ni la fii tooy wala fii wow yow ma sang. di nga tiit ab taalibeetim bu baree jax-jax ak yëngutu ci kanam sëriñam sëriñ ba dina am tiitange ci moom kon nañu mel nip néew ci kanami loxo yi ka koy sang xëccoo bi dend ak sëriñ bi ba xëccoo bi dend ak sëriñ bi ca shérif bi ca jullikaay ba du yàgg ba nga nekkub shérif baa nga jege ko ab taalibe dong ngay doon ginnaaw ab taalibe dong ngay doon nañu yem ci taalibe gi noppal sunu bopp noppal shérif si seen xel mën a dal waaye kër Cheikh fu taalibe yaa ngay xëccoo fu ñu toog te kenn xamewu koon Cheikh Maxfu ak taalibe Cheikh Maxfu nañu mooy loolu méngoowul loolu méngoowul gudd daal mu gàtt Cheikh Maxtaar Diop nee na ah, li ma bëgg te yaakaar ni bëgg ngeen ko mooy ñu seetaat suñu bopp xam ni ñuy jàppe kër gi organiser wu waat teg ko ci yoon ba bu ëllëgee daanaka coono waruta am bu kuréel yi baree ku ne jaar fa nga war a jaar ay téléphone dong la mu jeex tàkk bu gàmmo jotee ñu gàmmo sunu gàmm gu aw yoon bu korite jotee ñu korite sunu korite gu aw yoon te kori gii nag man sama xalaatu bopp Cheikh Makhtar Diop daa yemut ak leen ndax ñii dañoo ñëw ci seen kër maam ndax te fi nekku fi nekkuñu fi nag ñoom dong seeni doomu baay la nekkal maanaam juróom benni bunti yi sunu maam Cheikh na Cheikh Saad bi mooy doomu baay ay Cheikh ma dafa bëgg njabootam gi rek wallaay loolu dong la rek yàgg na koo wax du tey du tey juróom benni bunti kër yi Cheikh ni Cheikh Saad bi boo ci boolee kër Cheikh ma fu lay wax su ko defee nag su ko defee Cheikh Matar Diop nee na dañoo war a góorgóorlu dañoo war a góorgóorlu ba kenn du ni accam ba kenn du ni accam war a góorgóorlu dañoo

am na foo yem booy kaf ak sa sëriñ ngeen wéet ba mu dugg ci taalibeem arrêteel kaf gi soo xuusee rek soo xuusee rek yaa ngi dugg yaa ngi dugg te bu boobaa du baax te bu boobaa ñëpp yemuñu du baax nañu yem ci taalibe rek ah, mi ngi bëgg a guddi gudd mu gàtt daal cheikh daal li mu bëgg taalibe yi ñu organisé wu ñu nekk benn defar suñu kër sëriñ li ma ci yokk mooy balaa kilifa gi jël mooy nanu bàyyi ni nimsaat gi cheikh na cheikh saat bu dafa ñaanoon mu bañ a xumb nañu bàyyi loolu màkk ba fa yonent tibe day ne ni mu mel tey melu ne woon kon nanu góorgóorlu bala ñoo dellu seeti fii ëttu cheikh fu bii nañ fi tabax bâtiment bu rëy rëy terrasse ko karole ko defar ko ba mu rafet ba mel ni panaal bu sunu sang bi ñëwatee dugg ci asalaamaaleykum wa rahmatullah wax ji bariwul te du gudd li tax it bàyyiwuma biram mu jottalil ma dama bañ kenn yaakaar ne dafay yokk ci samay wax dara wala mu di ci wàññi dara may nuyu taalibe yi yaa may dégg di leen sant di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla te di leen wax ne leen njabootu kër Cheikh Al Mahfou gii toog ci seen baat laay waxe bég nañ ci yéen yàlla na yàlla bég ci yéen man nag tey may surga kër Cheikh Al Mahfou du xalifa kër Cheikh Al Mahfou surga bi laa puisque nag nit ku nekk boo ko bëggee utiliser danga koy utiliser ci bëgg-bëggam man surga laa bëgg a nekk ba tax na lépp lu may wax ak yéen ci ñoom turu ki ci gën a tuuti ba ki ci gën a mag laa koy wax ak yéen boo gisee sànq bi Cheikh Makhtar waxee ne dañoo nekk ak seeni doomu baay ma yaakaar ne ñii a tax muy wax ma teel koo rectifier fii doomu baay amu fi fii samay doom a fi ne samay doom ñoo fi nekk man kenn du fi sama frère bokkuma fi kenn ndey ak baay juruma fi kenn bàyyi kenn ñoom ñépp samay doom lañ xam nga lu tax samay doom lañ xadaraami mi moo fi nekk ku ko jur ah Cheikh mohammed badou Cheikh mohammed badou ku ko jur man maay Cheikh Mahfou kon ah wa waaw loolooy dëgg te lol la fas doxal na bu yaakaaree ne moma a gënal Mouhamed Fadel mële réer na mom mi bu yaakaaree ne moma a gën a jege Mouhamed Fadel mais réer na parce que man nanguwuma loolu doxaluma ko li ma gën a tàng sama xol ci àddina mooy may dégg ñu naan kër Cheikh Mouhamed Fadel kër Cheikh Chaye ana Cheikh Mouhamed Fadel kër Cheikh Mouhamed Fadel kër Cheikh Chaye fii kër Cheikh Mahfou moo fi nekk moom doo nga fi ne bu ko defee bu ko defee dama leen di dénk yéen taalibe yi ku ciy wét ku ciy wut sama mbégte man ku ko ciy wut mooy ñii koo ci gis jàppe ko ni ma jàppe wala nu ko raw ku ciy wër jit sama mbégte mooy ku ci yor dara di ma wër pour jox ma ko koo ci jëkk a taseel ci ñoom jox ko puisque loolu moo jaadu sama diggante ak ñoom moom la mooy sama warugar sama diggante ak ñoom mais ñoom noonu lañ doxaleek man ñoom noonu lañ doxaleek man man kañ laa ñëw bërki biig ah? ci ku war a jiitu korite gi kan moo doon def li fi nekk lu ma soxlawul loon mële wala eh, ana Sidi Boye wala Sidi Boye wala Wolime kenn wala taal ku ma ci jëkk jot rek na la demal def nanga te na ma na koy defee day raw na ma xalaate woon nga defe ko noonu hmm? loolu nag mbokk yu ànd mbooloo mu ànd kër gu ànd rek a ko man dama ne nim jaatiyaatu naa këri Cheikh na Cheikh Saad bu juróom-ñeent mbeet ni buntu kër lañu mais man rek maa fi mën a tàllal sama loxo tey ni kër Cheikh Mahfou lu ma fi wax ñëpp moom la ñu wax geneen kër bu ko am nga wax kii tëruma nag yàllaa ko def maa ngi ci sant yàlla mais keneen mënu koo wax ah keneen mënu ko fee wax bu ko defee damaa bëgg yéen taalibe yi ngeen xam ne yàlla rek a tax ñu ànd ak yéen yéen yàlla rek kaw tax ngeen ànd ak kon na ngeen jaamu yàlla na ngeen bëggante seen biir na ngeen fonk seeni waajur lépp nag lu ngeen ñu mën a defal ci àddina bu ngeen ñu doon indi la àddina ak li ci biiram te àndandoowu leen seen àndandoo moo ñu ko gënal ngeen di yëkkatee ndoo di dóorandoo loolu mooy dëgg Cheikh léegi wax na ko Cheikh mii ndeysaan fi ma ko teg sax xamul lu tax ma teg ko fi moom dafa yaakaar ne dama ko wóolu rek walla daf ma doy rek ma teg ko fi Cheikh man teguma ko fi dama koo delloo yëfam dama koo delloo yëfam suñu maam Cheikh Mahfou bi muy génn àddina ci ngumba ci kër Cheikh Makhtar Diop la génne àddina ah kon bu ñu demee tey ba jamono yu dox ba tey moom muy sëtu Cheikh Makhtar man may sëtu Cheikh Mahfou su ma fabee kër Cheikh Mahfou dénk ko ko delloo naa ko yi foofu la du leneen moom nag moo xam ndax da koy defar wala da koy yàq wante it nag danaa leen xamal lenn kër Cheikh Mahfou mooy ñun ñii ñëpp topp leen ko ànd leen ak moom jàppale leen ko puisque moom kër gi rek lay defar ku bëgg nag kër gi defaru da nga ànd ci li ñu wax ku ko bëggul it nag duñu nga yàq suñu kër de loolu moom du ma ko nangul kenn kenn laa ko dul nangul kenn laa ko dul nangul ma di leen nag wax yéen taalibe yi puisque dafa am loo xam ne ñun ak yéen da ngeen koo war a xam ñun lu nekk ci ñun da ngeen ko war a xam puisque lu nekk ci yéen da ngeen ñu koy wax ma bëgg ngeen xam ne Cheikh Mahfou gii yamay deg xajj ak sen newu fi wulloon mele mo mak ci kër Cheikh Chaay tay yamay deg wante kéro bu mu juddo ci Ndar man majel jël auto bu ñu wax commune car sama papa abal mako mo duggal ci nak ak xar ak warga ak ceeb ak dëwlin dem ngenté ko ba ma xé bayam faral xam nga lu mu wax ñoom meer ndaw ñom mer Ayda Touré bañ koy wax dana leen ah man sama yoon newatu mom mi mako ngenté kii kon sama doom la te baayam ñoo bokk ndey ak baay kon sama doom la ah. ah kii lan la mën a nekk lu dul sama doom lan la ko nit mën a def lu sama doom ah kële Ahmed mee toog maa ko ngénte ndar yaa may dégg muy sama doom wante it maa ngi leen di seedal ne nangu na ko Maître Wade mi bi bàyyam di dund musula bàyyam da ko daan wooyee dakaar ne ko kaay dawalal ma ma dem Nimja mais balaa muy génn daf may woo téléphone dama sama papa kat daf maa woo pour ma yóbbu ko Nimja dama la doon tàggu loolu lay def moom mi ba tey jii ba bërki dem bi muy ñëw def na ko kooku nangul na ma wala nangul ah ñooñu ci des gaaw xaale wu ma ne ñooñu ci des ku ci dof dof ma yeewlu fi dóor la léegi ba ngay bëgg a dee kenn du ci dugg hmm? il faut ngeen xam ne ñun noon lañuy doxe ab loxo lañu ku ñuy jàpp dangay jàpp loxo bi yëpp kuy bàyyi bàyyi loxo bi yëpp loolu dafa jaadu ngeen ñu wax leen ko ndax lan ndax kenn ku nekk ci yéen bu gisee kenn ci ñoom xam naka la war a mën a doxalee moom وانت نيو ميت ماغي لين دي واخ نيلن طالبي يي امول طالبي با امول طالبي ولي امول طالبي كين طالبي شيخ محفوظ لي يا ماي ديك كين كو تي تاسي ген نين كو نيكال شيخ محفوظ لول موي ديك دنگ بوكو دافي نك امنا لينن لو خامني يفي ادنا لا شيخ مختار واخ نكو اورغانيزي ولين بولين ساس كين دارا مي كين كو نيك لامو اتان نكو ديف am na loo xam ne du woon samay wax waxi Cheikh Biram mii la hmm. mooy nañ defar bâtiment loolu sama yoon newu ci sama yoon newu ci man soxlawu ma lenn luñ may defara na kër gi baax rek yaa may dégg loolu seen wax la yéen yéenay xam ndax da koy def wala da ngeen koy bàyyi kooku seen problème la defal ndànk rek mais li ma bëgg ñu xam ko te xam ko mooy kër Cheikh Mahfou dafa amuy bis muy gàmmu ak korité Nimzaat man nag korité Nimzaat gi laa gën a fonk gàmmu xam ngeen lu tax ah parce que fii mooy kër Cheikh Mahfouz fii mooy kër Cheikh Mahfouz fii la Cheikh Mouhamed Fadel juddoo fii la Chaaya juddoo fii la suñuy nawle nekk fii la suñuy nawle nekk moo tax korité bii damaa bëgg kuy def téeméer ca gàmmu gee defal ma ci korité gi ñetti téeméer Cheikh Makhtar man waxuma nga defar ma bâtiment mais suñu terrain bii bëgg naa ñu xool nuñ ko defaraate ba mu ñoŋ ba mu ëllëgee bu ñuy ñëw yaa may dégg ñu fekk ko mu mel ni mu war a mel comme ni mu mel ren wala nu ko raw te loolu nag xam naa xëy na boo waxtaanee ñi seen xam-xam màcc ci loolu danañ nga wax na nañ ko mën a defare ndax nim jaata ñu commencé xat te nit ñi suuf jaral na leen lu nekk ñun nag xëy na fii dëkkuñu fi fanaanuñ fi yewwuñu fi wante moo ñu gënal fu nekk nag puisque fële fi mooy wàllu Cheikh Mahfouz dëgg li am solo mooy wàllu Cheikh Mahfouz li am solo du suñuy wàllu ñun fexe ba garde li fi Cheikh Mahfouz bàyyi woon looloo am solo dégg nga bu ko defee loolu na ci bàyyi xel beneen bi ci des te nga xam ne nag ñor na ma te moo ma gën a ñor lépp mooy korite bii ak gàmmu loolu nag dafay jar ngeen koy teel a waajal mm-hmm. dafay jar ngeen koy teel a waajal te nit bu la dee digal dara dala la cay jiitu nit bu la dee digal dara bu la dee won yoon day dem sa kanam ba nga xam ne yoon waa ngi nii ba tax na njabootu Cheikh Mahfouz gii giitoo biñ dajaloo waxtaan seen biir nee nañ kees gi ngay def pour gàmmu gii ak pour korité bii ak gàmmu gay ñëw ak yeneeni bis yu concerne kër Cheikh Mahfo kenn du leen ci jiitu ñoom ñoo ko wax ñi ngi nii jox nañ ma million nee na ma ñoo ñoo ubbee ko sa kees mi ngi nii teel waxuñu la nga def ko ci bâtiment besoin yu kër gi ak bisi kër gi ci lañ la wax nga def ko ci ñom ñepp ngi ni amul kenn ku ci dugalul sa xaaliss man naka defuma ci dara ñoko ko dajalee indil ma kon Nyom comme yeen ñom ngeen yaakaar ñom it ni lañ bëgg ak man suñu kër doxé ni té won nañ leen yoon wi way na ngeen hmm du dëgg lii ci korité la jëm wala gàmmu ak leneen lu ci topp yaa may dégg li ñuy defaree terrain bi yaa may dégg ak nee ngeen da ngeen di defar bâtiment kook seen problème la ngeen koy defaree lii bokk ci taxu koo jóg leer na wala leerul waaw bu ko defee loolu mooy wax ji leneen li ci des mooy nimjaat gi kenn ku nekk xam na ne

dajaloo am benn place bu ñu jullee génne ku ñu jiite ñu julli ñu ngi ciy waxtaan yàlla mën naa dogal mu sotti bu sottee danañ am place bu ñu jullee ji xamaguñu fan la mais boobaa yéen ñëpp taalibe yi li ma leen di ñaan mooy ñun de ñun waa Kër Cheikh Mahfouz ci yar danañ fexe ba nekk exemple ci waa Kër yentam na ngeen fexe ba nekk exemple ci taalibe yi na ngeen fexe ba nekk exemple ci taalibe yi loolu rek lañ soxla tell tell jéeg xalangu beeg yooyu yépp amul benn njariñ yaa may dégg ñun yiw rek lañuy nyu topp moo ñu indi fii kon kenn waruñoo gën a yiw hmm? loolu bokk na ci li nga xam ne maa ngi leen koy dénk maa ngi leen di dénk it ñaar ñu xamantewul ci yéen nañ fexe ba xamante ngir yàlla dénk na leen pour ngeen xamante ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi tax ñu sàkk leen wante ngir Cheikh Al Mahfoum ngeen bokk ñetti ñi ku ñu jaralul dara see boo nga bañ a nekk ci dara puisque bëggoo dara hmm? loolu mooy li nga xam ne moom laa leen di wax wante nag li ci ëpp solo ci man li ci ëpp solo ci man li ci ëpp solo ci man wax naa ko ñetti yoon moy ngeen xamne ne ko Cheikh Mahfou gi ben nit lañu ben nit lañu duñ ñaar ya may deg ku ne buma ma taseegul loon mi dana ko dóor boo taseeg man say bo nga dor ma puisque buma ko yegge bo ma dor dana la dor waaw loolu moy deug ñun duñu ñetti nit duñu fukki nit benn nit lañu wuñu ñoo ngi nii di ñaanal yàlla nag te di leen wax ne leen na ngeen góorgóorlu ci man mii xam ngeen nu ngeen di góorgóorloo ci man mooy ngeen bañ maa seetlu ndax man ñi ma fi remplacer ñoo ma gën fuuf bu ngeen ma seetloo rek duñu dem jarax ju remplacer muus lañu yaa may dégg bu ngeen ma bëggee xool ci ñooñu nag da ngeen def erreur ñooñoo ma gën de ñoo ma man it nag ñoo ma raw yàlla moo def lool yàlla moo ko def yàlla nañu leen yàlla fayal ñoom nag taxaw nañ ma taxawaay boo xam ne yàlla na ma yàlla dimbali ba ma fay ko ci njaboot gi loolu moom ku may ñaanal say boo nga ñaanal ma yàlla loolu bu ko defee loolu moo doon wax ji mu gudd mu gàtt